Ahmed Aïb Daffé euh, on a on l'a appris cet après-midi Euh, ordre des médecins dafa euh, déposé euh, depuis démb benn préavis de de de grève ci biir préavis bi ñi nga xam ne ñoom ñooy waa SAMES ñu ngi ñaawlu seeni ñoñ yi ñu teg loxo ki nga xam ne moom mooy le docteur Mbagnick Ngom il a eu un retour de de, de parquet euh, docteur Boulos bi nga xam ne euh, il gère une un cabinet de consultation médicale privée moom bëggoon nañ ko teg loxo waaye dafa euh, nekk ci jafe-jafe euh, ci wàllu wérgu yaram ñoom SAMES jàpp nañu ne euh, du ñu toog seetaan ñuy violer la sacralité du du du du secret du secret médical ñenn ci seeni ñoñ ñoo xam ne ñu ngi doon xaarandi fan la ñuy mujjee teg nañu leen ñaar ci seeni ñoñ condamné nañ teg nañu leen deux mois. Euh, de prison ferme ñooñu ñu dugaloon seen loxo euh, ci ay manifestations yooyu euh, aujourd'hui yéen ndax da ngeen di prévoir une jonction avec l'ordre des des des des médecins parce que situation wu Ousmane Sonko les accusations d'empoisonnement moom moo indi situation bi yëpp. waaw may mun a effectivement je pense que dëkk bi jamono ji ñu nekk nii. Euh, ñoo ngi dund loo xam ne lu doywaar waar lu metti euh, te yaakaar naa ni xaaree ko woon ci ku mel ni président Macky Sall parce que bu muy eh, ñëw en 2011 euh, 2012 bu muy génn en tout cas PDS espoir bu mu suscité suscité woon ak si lu mu baatroon campagne vraiment da cee mettre en avant renforcement de l'état de droit de la démocratie et de la bonne gouvernance te ñu gis ni jamono jii euh, maanaam ñoo ngi salfaañe lépp loo xam ne liberté la ak droits fondamentaux yoo xam ne constitution moo ko maye donc liberté d'expression liberté de manifestation liberté de réunion liberté d'aller et de venir ba di attaqué wu léegi ci loo xam ne moom mooy xolu profession médicale yi profession en tout cas euh, professionnels yi ñoo xam ne ay profession libérale lañ mooy ñoo xam ne tey dañu am éthique dañu am déontologie parce que tey suñu ñu nee médecin rek dafa ànd ak secret médical mais tey soo buggee remettre en cause le secret médical ah nga ne ay médecin léegi yéen da ngeen war a trahir seen serment d'Hippocrate loo xam ne ñoom bu ñu jàngee ba pare ba ñuy balaa ñuy commencer exercer loolu dañ ko waat comme juge yi ni ñuy waatee balaa ñuy entrer en fonction yow la yenn koor yi donc comme Macky Sall dafa waat moom tam balaa muy comme nekk président de la République parce que article 37 dafa ne il fait le serment de faire de respecter la constitution et ses dispositions ainsi que la loi et de les de le faire respecter donc tey gis nañ ni dafa am loo xam ne pour man wooweetuma ko sax euh, euh, traque la mooy maanaam ñoo ngi rëbb lépp loo xam ne moo ngi tourner autour de président Ousmane Sonko euh, benn but la rek comment faire en sorte que Ousmane Sonko bañ a bokk à la présidentielle de 2024 te ñu gis ci panique ñu gis ci affolement ñu gis ci maanaam euh, déchainement boo xam ne ak euh, répression boo xam ne kenn mësu ko gis en tout cas Sénégal man en tout cas fàttalikuwuma ko bon peut-être que je suis pas très vieux mais en tout cas lu ma jot a dund ci wàllum politique maa ngi doog gis type de répression bu demee nii parce que tey actuellement on soo jëlee parti bu mel ni Pastef dafa mel ni tey nekk opposant c'est un délit nekk biir opposition nag nekk fa patriote nekk fa bokk fa Pastef nag c'est devenu un crime parce que tey on a plus de six cent sympathisants wala membres yoo xam ne ñoo ngi ci kaso yi condamné mais soo soo xoolee seen euh, arrestation wala détention yépp ci ay question manifestation tey gis nañu au niveau du tribunal de grande instance de Dakar procureur bi visé l'article quatre-vingt atteinte à la sûreté de l'État pour plus de deux cents détenus ñoom ñëpp benn délit sans distinction loolu lu mu si jublu mooy wañ loxo juge d'instruction bi parce que xam nañ ni article 139 du code de procédure pénale nee na quand le procureur bi su visé article 80 atteinte à la sûreté de l'État le juge d'instruction est tenu de décerner le mandat de dépôt te suñu laajee liberté provisoire su boobaa tant que procureur bi joxewul accord am du ñu mën a am liberté provisoire te ñëpp xam nañ ni actuellement justice nu muy doxee mais procureur yi ils sont sous les ordres du ministère de la justice il y a cordon ombilical ñoom suñu jotee ay instructions ils sont obligés de les appliquer le ministère de la justice il est sous la responsabilité du président de la république qui est en même temps chef de parti ba pare bëgg jaar si loolu éliminer sa adversaire politique daf de la sélection donc actuellement ñun lu ñu gis nii mooy une violation flagrante des droits et des libertés te ñoo ngi remettre en cause tous les acquis démocratiques nga xam ne depuis euh, Senghor sax laay wax depuis Abdou Diouf depuis euh, Ablaye Wade yoo xam ne moo tabax démocratie sénégalaise moo tax démocratie sénégalaise ñu naw ko au niveau international loolu yëpp Macky Sall moo ngi koy salfaañe Macky moo ngi ternir l'image de la démocratie sénégalaise par ces différentes pratiques là parce que soo xoolee actuellement au niveau international vraiment euh, suñu image rafetu fa donc moo indi lii euh, ces médecins là qui sont actuellement euh, poursuivis parce que simplement ils ont fait leur travail et ils ont voulu respecter leur serment donc tey suñu d'accord woon ni dañuy violer seen serment violer secret médical bi justice du leen topp on a on l'a vu avec le cas euh, du médecin Alfousseyni Gueye le gynécologue qui avait officié dans l'affaire Sweet Beauté nu mu mujjee c'est la même répétition rek euh, gis nañ ko également avec la capitaine Touré également donc tey dëkk bi euh, képp koo xam ne da nga bëgg def sa liggéey jaarale ko ci éthique jaarale ko ci déontologie par rapport à profession yow ñoo ngi lay menacer ñoo ngi lay xoxatal et tu es en danger tous les Sénégalais sont en danger nag situation boobu nag su taxawee mais ce n'est plus simplement le rôle des partis politiques force vive yëpp nañuy woote que ce soit les syndicats que ce soit les associations la société civile ñëpp tous les sénégalais les personnalités indépendantes moo tax am na benn plateforme boo xam ne tegu na pour la préservation et la consolidation de la démocratie ñoo xam ne plus de quatre-vingts organisations et personnalités indépendantes ñoo ngi ci am na ay yoo xam ne signé nañu également une pétition des intellectuels reconnus au niveau international pour demander à Macky Sall de revenir à la raison c'est ça le titre de leur pétition donc situation boobu nekk actuellement donc des gens sont détenus sont enfermés pour Merci. délit d'appartenance à un parti politique Merci. pour délit d'appartenance à l'opposition des gens sont détenus enfermés poursuivis Merci. simplement parce que tey dañuy def seen liggéey ils ont eu le malheur de croiser dans leur travail Ousmane Sonko alors, est devenu la euh, cible alors, en tout cas de tout un régime boo xam ne nelawatul euh, ndax euh, un candidat à la présidentielle de 2024 Amad, qui est le potentiel en tout cas vainqueur à cette élection